Mamadou Lamine Diante ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay di nuyu seen auditrice ak auditeurs nekkoon nga secrétaire général SAEMS CUSEMS également coordonnateur grand cadre da ngay gëstu aussi ci wàllu njàng ak tàggat alors wàllu njàng meeg njàngale meeg jamonoy coronavirus gi ñu nekk xaw na taq suufa ndax euh, ginnaaw ñetti ayubés yi président decrété woon euh, nee nañu ku mayewul àllarba ji conseil des ministres dina jëlaat dogalu ñoddiwaat vacances yi ba ñetti ayubés loolu ba njeexital la nar am ci njàng mi surtout at mi ñu ne. waaw loolu de bu amee moom euh, évidemment dina tax euh, année scolaire bi dina gàllankoor année scolaire bi dans tous les cas parce que euh, c'est vrai que ci ñetti ay bés yu njëkk yi duñ ko jëlee génnee ci vacances yi nga xam ne élèves yi naroon nañ ko jël ci ci fête yi donc benn ay bés rek moom la ñu jëloon ci ci année scolaire bi bu yemoon foofu rek moom pour rattraper loolu du doon du doon problème mais bon tey jii euh, buñ ci naree yokkaat euh, yenn ñeneen ñetti ay bés donc cela veut dire que boo moytuwul fii euh, fin avril jàng du am bon bu boobaa dafa mel ni weer lëmb lañ génne ci année scolaire bi donc loolu dina xaw a indi tuuti jafe-jafe mais dans tous les cas ma yaakaar ne bu ñu taxawoon lu ñu waroon taxawee amaana ci diiru ñetti ay bés yi même bu ñu Euh, éliminé wul euh, feebar bi Sénégal carrément carrément mais au moins dinañ ci doon euh, dox ay jéego yu rëy pour que fii ak quelque semaine feebar bi mu mën a jóge Sénégal mais bon loolu ma yaakaar ne am taxawaay boo xam ne ministère de l'éducation nationale mënoon na ko taxawee jëmee ko ci ci ndongo yi pour que ñoom ñu mën a waxtaan ak askan wi. fànq feebar bi mais malheureusement loolu amul euh, mais dans tous les cas tey jii ñoom li ñu war a def moom mooy que ne ñu euh, commencé xalaat déjà nan la ñuy fexe ba def euh, réaménagement calendrier scolaire pour récupérer ak année scolaire bi parce que tey jii xel mënul nangu ñu ne bon que année scolaire bi war na war na nekk année blanche parce que déjà liggéey bu ñu jot a def ci année année scolaire bi. war na tax ñu mën a sauver année scolaire bi donc ay stratégie la ñuy élaborer rek pour mën a récupérer année bi euh, bañ bañ bañ mu nekk année blanche. stratégie yooyu lan la mën a nekk ak nan la ñu ko mën a doxalee. waa xam nga xam nga tey jii euh, déjà euh, am na benn semaine bu élèves yi ñàkk bon bu amaatee yeneen ñetti semaine donc day nekk weer loolu bu ci génnee. évidemment mënuñoo xalaat ne le 31 juillet la école bi di di tëj bon bu buñ ci génnee une un mois ci année scolaire bi donc dañu war a xalaat même bu dee rattrapé ñu carrément un mois mais euh, am na ay nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu boobu war nañu xalaat euh, ministère de l'éducation nationale xool nan la ñuy fexe de cours yi nga xam ne ak yi nga xam ne élèves yi nañ ko ñu mun ko rattraper au-delà de du 31 juillet donc lu ñuy mën a def moom mooy que déjà ñu pousse euh, pousse examen fin d'année yi Euh, permettre élèves yi ñu mun a <coughs> jeexal seen programme surtout ñoo xam ne ñoo nekk ci classe d'examen yi euh, ñu mën a dem ci ci euh, examen de fin d'année ak xel bu dal pour mun a conserver seen chance su réussir examen. loolu moom mooy moyen secondaire bi am na ñu jot a def ñaari semestre muy ay composition. waaw xam nga xam nga élémentaire moom. ñetti semestre la am. Hmm. jot na jot na def déjà deux deux trimestres ñetti trimestre la am autant pour moi. jot nañ def deux trimestres ba pare. Euh, ñenn ñi sax jot nañ seen bulletin premier trimestre ak deuxième trimestre donc benn trimestre moo leen dese moyen secondaire également def nañu seen premier semestre bay ñenn ñi commencé nañ seen second semestre bon donc euh, deuxième semestre bi dañu koy tuddee semestre rek mais daanaka trimestre rek la mhm. donc euh, tey jii bu loolu yëpp amee maanaam boo jëlee année scolaire bi def ko ñetti pàcc ñaari pàcc yëpp euh, def nañ ko ba pare donc pàcc bu des moom bu ñu bu ñu xalaatee am na stratégie parce loolu yàgg na fi am ay stratégie yoo xam ne dañ ko fi teg war nañ mën a sauver année scolaire bi parce que année scolaire bi moom baaxul ci état baaxul ci ndongo yi baaxul ci jàngale yi mm. donc euh, tey jii loolu la ñu war a jublu parce que en réalité bu lu mel nii bu amee euh, c'est ni ko tubaab bi waxee c'est le prix à payer mm. pour ñu mën a donc nit ñi toogaat fii euh, Euh, au-delà du 31 juillet pour euh, mun a jeexal at hmm. loolu moo loolu loolu war na mun a nekk li ñuy ñaan rek mooy que ne même bu dee dem nañu encore prolonger vacances wu xale yi mais ñu am taxawaay boo xam ne dina dina tax euh, prolongation bi mu bañ a niil. Hmm. mu mën a am effet prolongation bi c'est pour que ñu mun a circonscrire feebar bi ci localité yi nga xam ne foofu la nekk déjà localité yi nga xam ne feebar bi yeggu fa. Euh, ñooñu nañ ko dégg rek mais ñu bañ a gis feebar bi bu ci des ñoo xam ne euh, circonscrire nañu localité yooyu xam ñan la doomu jàngoro bi euh, dugg ak ñan la duggul suñu mbokku médecins yi ak infirmiers yi ñoo ngi ci taxaw taxawaay bu am am solo pour pour saafara saafara seen seen jàngoro donc bu ko defee nañ maîtriser situation bi et à partir de ce moment là yi nga xam ne état bi jël na ko. xam naa dina ko alléger tuuti pour permettre nit ñi ñu mun a euh, reprendre yeneen activités yi comme par exemple euh, dem école fekk déjà euh, wóor nañu ne même bu ñu reprendre cours yi également feebar du mm-hmm. ko waaye yëf itam mën naa yàgg bu nu sukkandikoo ci yenn boroom xam-xam te itam situation bi ni ñu ko gisee nuruwul lool loolu dellu ginnaaw bu loolu la naroon am tey noo gisee ne mbir yi mën na koo demee. waaw xam nga xam nga loo gis rek yaakaar am na ci. bu ñu xoolee situation bi tey bi ñu commencé di compter ay ka cas communautaire nit ñi commencé nañ jaaxle c'est-à-dire que feebar bi commencé na law ci biir askan wi mais déjà euh, bu ñu xoolee limu nit ñi xam ne feebaroon nañu ba ñu wér génn hôpital loolu mën nañu may yaakaar ñaareel bi moom mooy que ne tey jii euh, ñooñu bi ñu bi ñu wéree amaana traitement bu ñuy wax commencé kon mais am na benn traitement boo xam ne fu mu ne nii daanaka àdduna bi yëpp nangu na ko. Euh, commencé nañ ko utiliser au Sénégal donc mun nañu am yaakaar ne ñu feebar ñii nii yàlla mun na leen yëkkati ci jàmm ñu delluwaat seen kër. Euh, bu ci des nag moom mooy que ne euh, gis nañ ne cas communautaire yi même malgré amoon na mais commencé na wàññeeku. donc cas contact yi ak cas importé yi bu ñu leen suivre mun nañu am possibilité ñu circonscrire leen bon léegi nag li xewoon feneen xëy ñoom dañoo dañoo dañoo négligé woon mbir mi ba tey jii fi jéggi dayo Sénégal même quel que soit li nit ñi mun a wax mais je crois quand que jël nañu matuwaay yi à temps euh, léegi li ci des moom mooy que ni askanu ci boppam nit ñi ci seen bopp ñoo war a gunge état bi parce que en réalité état ñun la fi nekkal bu ñu état ñun la fi nekkal ça veut pas dire que moom mooy tibb fu mu euh, li mu am mu jox ko nit ñi ñun la fi nekkal pour également wax ñu lan moo baax ci ñun donc bu état bi waxee nañ ci tënku ku nekk euh, def ko sayfu bopp nekk nekk état fi nga xam ne moom euh, am nga fa influence pour que li état bi jël ci ay dogal ñu mun ko ñu mun ko kii bu ko defee maanaam li feebar bi def yeneen dëkk yi euh, Sénégal mun na ci mucc. d'accord sànq yaa ngi wax aussi ne ministre bi am na fu mu soxee ci sa xalaat ban taxawaay la waroon a am ci mbir mi. waaw xam nga xam nga bi bi feebar bi commencé président de bi jël dogal yu muy dogal ci turu état du Sénégal euh, te askan wi ànd ceeg moom gis nañ ne ministre de la santé. mi euh, nga xam ne Sénégalais yëpp gis nañu taxawaay bi mu am te ñu bëri am na ñoo xam ne sax nee nañu dañ ko yërëm ci mbir mi mais liggéeyam lay rek lay def gis nañu ay naataangoom yu bëri ñoo nañ taxaw ci wetam wax ak askan wi wax ak ak secteur boo xam ne moom la ñu moom la yilif mais euh, gisuñ ci ministère de l' nationale kon ñu yaakaar ne ministère de l' éducation nationale ni mu ni mu ni mu bindoo war na mën a euh, jouer role bu am solo ci mbir mi nan la moom mooy que ne boo dem ci biir Sénégal am na fa. Euh, représentant maanaam service déconcentré euh, ministère de l' éducation nationale moo njaboote élèves yi amul kër booy dugg tey Sénégal tey doo fa fekk donc moom bu au lieu mu taxaw fi naan way woy damay liggéey pour euh, mu bañ a am euh, mu am continuité pédagogique dañuy def ay cours de distance moom bi mu koy wax xam na ne jumtuwaay amul loolu mënut a nekk li mu waroon def moom mooy que ne def sensibilisation taxaw jàkkaarloog askan wi. Euh, wax leen ban taxawaay la élève bi war a mën a am ban taxawaay la jàngalkat bi mën a am ban taxawaay la waajuru ndongo bi mën a am pour que feebar bi ni ko président de la république jëlee ci ay dogal ñu mën ko maîtriser defu ko alors service déconcentré yi ànd ceeg moom ci ay instructions euh, dina tax véritablement euh, askan wi yëpp mën a manko jublu ci li ñuy tuddee gestes barrières yi euh, de sensibilisation pour que feebar bi mën a bañ a dugg ci biir askan wi te ñu circonscrire mbir mi pour que trois semaines yi nga xam ne président de la République jotoon na ko jël déjà au bout de ces trois semaines là bu ñu defee jàngat ñu nga xam ne dox nañ ci ay jéego yu rëy a rëy pour que véritablement feebar bi bañ mais dafa taxaw ne way léegi dañuy continuer cours yi alors que loolu xam na ne démagogie la parce que trois semaines yi la naam moom la président de la république tëj école yi mais boo ci jëlee deux semaines yi benn semaine kese la donc loolu amoon na beneen taxawaay bu mu ci mënoon am amoon na feneen bu mu a orienté ay action ay action plutôt que dafay def ay cours à domicile alors que loolu mënul nekk. justement cours à distance yooyu ngay wax réew yu bari moom la ñuy doxal di jàng jaare ko ci internet bi yaakaar nga Sénégal fii ak diir ñu mën a dugg ci loolu. waa xam nga as euh, adduna bi amul euh, luy xew fenante te ci minute bu ci topp yow doo ko xam donc euh, mun nga jàng ci nit ñi mais nag euh, jàng ci nit ñi warul tax nga ne léegi da ngay rek coupé maanaam li nga gis fële moom ngay jël copier ko exactement fii loolu mënul nekk France am na jéego yu ñu yu ñuy dox déjà pour egg fii tey jii ci cours à distance mais Sénégal bi comme ministre de l'éducation nationale di waxee moom xamoon na ne mënul nekk mënul nekk parce que en réalité jumtuwaay yi amuñu dispositif boobu amul ñi ko war a animer mooy jàngalekat yi kenn tàggatu leen ci wàllu woowu élèves yi ñëpp amuñu tablette wala téléphone portable wala wala ordinateur am na ay bërëb yoo xam ne Sénégal ba léegi amuñu courant waxatuma la ñu am euh, ñu am internet donc euh, boo ne tey jii da ngay jël loolu pour remplacer cours cour yu nekk ci biir école bi mënul nekk donc nit ki da ngay réaliste wax nga xam ne loolu yow jumtuwaay yooyu amoo ko lan ngay def moom mooy nan ngay fexe pour que lu gën a gaaw ñu dellu soit ci biir école bi parce que école bi rek la ñu am donc loolu am na beneen taxawaay bu waroon am moom lay wax ne moom laa doon wax sànq ci ay sensibilisation pour que euh, bu ñu génne woon ci diiru ñetti ay bés yooyu bu ñu xayma def euh, évaluation dañ xam ne ah ñun kat kon tey jii euh, fii feebar bi nekkoon ak fii fi nit ñi ragaloon euh, tey jii euh, def nañ ci ay jéego du war a tax ñu mun a delluwaat école bi sans pour autant que nekk école war a nekk euh, euh, facteur de propagation du coronavirus. Mhm. mais euh, tey jii bëgg wax nit ñi ne dañuy def cours à distance seen naataango sax am na ñeneen ñu yoo xam ne gis naa leen ñuy def classe bi ci biir télévision ci télévision mais loolu également ma yaakaar ne bëgg a wane wala rek mais xam nañ ne loolu mënul mën a remplacer warul mën a remplacer pour bu élève bi mën a def ci biir classe. mënul am benn njëriñ aussi ci élèves cours boobu élèves yaa ngi taxaw dañaa ngi toog ci kanamu eh, eh, télé bi di seetaan ñaareel bi moom eh, également élève bi day seetaan noonu rek mel ni film bu muy seetaan wala mel ni série bu muy seetaan mais amul benn benn benn situation classe boo xam ne am na ci bu ci des également même bu élève bi toogee ci kanamu télévision bi mais activités yi am ci biir kër gi waru ko mën a concentré comme bu nekkoon ci biir classe bi hmm. donc léegi nag mën na am njëriñ effectivement bu dee classe ba nga ñëw defaat cours respiration euh, devant devant l'écran évidemment day nekk révision bi ci élève bi mais bon élève boo xam ne amul benn pression amul benn obligation euh, amul devoir bu muy def concentration parce qu'en réalité yow gisoo ko xamoo ko donc moom daf lay seetaan bu ko intéressé mu seetaan la bu ko intéressé lu la seetaan parce que euh, amul kii mais loolu yëpp organisation la te ministère de l'éducation xam nañ ne organisation la il faut que élève ci biir kër gi nga mu jox beneen emploi du Euh, mën a jàkkaarloog euh, maître bi mu def cours te am possibilité également bu amee lu mu comprendre mu expliquer mu wax ko maître bi wala mu yónnee ay ay questions bu ko defee ñu yónnee ko tontu yi euh, et cetera mais te jii def cours xam nañu cours bu nekk dafa am évaluation def cours ci biir ci télévision bi wala ci internet bi te amul évaluation amul dara mënoo obligé élève bi mu toog seetaan suivre cours boobu mhm. donc nañu nañu nañu dellusiwaat ci ci kaw suuf xam ne ñun daal euh, am na loo xam ne war nañ ko def te jëfee ko moo ëpp solo di jéem a jaay yenn yoo xam ne euh, pour jéem a amuser la galerie ni ko tubaab bi waxee alors que amul réalisme. Mhm. sànq wax nga taxawaayu ministre bi mu war a am wax nga itam euh, ndongo yi xëy na rôle bi ñu ci mënoon joué yéen jàngalekat yi nag lan moo war a nekk seen wàll ci mbir mu ni mel. waaw mais xam nga lu lu ministre bi yëkkati rek. bu ko bu jëmee ci élèves yi. foo mu jaar ci enseignants yi. donc taxawaay bi yëpp taxawaay bi ministère bi la parce que même service déconcentré également bu ñu bëggee jot élève bi foo ñu jaar ci euh, ci enseignants yi donc euh, syndicat d' enseignants yi ay organisation yi nga xam ne dañoo jaboote enseignants yi mais ki njëkk jaboote enseignants yi mooy euh, mooy ministère de l' éducation nationale seen enseignants yëpp bokkuñu ci syndicats yi mais enseignants yëpp ci njabootu ministère éducation nationale lañ bokk donc ñooñu bu jotee jóg nañu indi indi seen dimbal euh, nguur gi jox ko ministre de l'éducation national def conférence de presse am ay message yoo xam ne jàllale nañ ko ci conférence de presse boobu mais ministère de l'éducation moo waroon saisir la balle au rebond ni ko tubaab bi waxee euh, jëlaat mbir mi def ko yëfu boppam euh, am taxawaay bu mu ci waroon waroon am pour que bépp jàngalekat sentir boppam ne dafa concerné ci mbir mi et que évidemment ñu mën a tàggat élèves yi ci geste barrière yi par exemple ci euh, xamal askan wi lan mooy coronavirus nan la ñuy fexee ba euh, xeex contre euh, coronavirus nan la ñuy fexee ba feebar bi du law ci biir askan wi bu ko defee fépp ci biir Sénégal moo am fu am courant fu am internet wala fu amul courant fu amul internet wax jooju mën nañ ko mën nañ ko jëmale ci askan wi pour que véritablement ñu mën a xeex contre coronavirus bi mais malheureusement ministère bi deful ko donc euh, du parce que dañ ko bëgg a accuser rek mais euh, ci suñu jàngat am na taxawaay bu mu waroon am comme ni ko euh, ministère du transport amee comme ni ko ministère de l'intérieur amee comme ni ko ministère du commerce amee mais euh, tey jii gis nañ ñooñu kam seen taxawaay ci biir askan wi alors que euh, ñooñu ñëpp seen taxawaay am na solo mais bu ministère de l' éducation nationale moo moo ëppoon solo si suñuy gis-gis. Mhm. ñu jeexal ak euh, xëy na taxawaay bi daanaka ñu bëri ci askan wi am mooy dugal seen loxo ci seen poche génnee li ñu am dimbalee ko nguur gi syndicaliste yi la na ci seen wàll. Ah, syndicat yi syndicat yi ñoom <laughs> joxe nañu un million. joxe nañu un million mën nañ ko xeeb mais pour ñoom xeebuñu ko. Euh, parce que en réalité euh, ñoom euh, li leen di jàngalekat di cotiser la ñu jël ci turu jàngalekat yi joxe ko am yeneen initiative yu ñu jël ubbi ay compte ne bépp jàngalekat wala bépp waajuru ndongo koo xam ne même ndongo boo xam ne am nga cent franc bu ko ci def na nga ko na ko ci def comme ça ñu jox ko ministère de ministre de l' éducation nationale mu yóbbu ko ci force covid 19 bon donc ñoom def nañ ko mais nag comme nee nañu nguur gi la ñuy dimbale na ndimbal na ci fekk loxol borom la lan la nguur bi def bu bu nguur bi joxee exemple euh, dina gën a yombal euh, contribution citoyens yi aussi mais bon oui nee nañu ministre bu nekk dina joxe un million kon la un million bi di joxe day liggéey ndax ci salaire la ndax ci compte la ndax ci budget waaw dañ ko dagg directement ci seen salaire ñu ne waaw euh, waaw kon kay loolu baax na mhm. mais xam nga aussi tey jii lu ji njaag président Macky mooy njaag donc tey jii nit ñi am na ñoo xam ne nee nañu na jël ci fond poli fond comme xaw ma caisse noire bu mu am pour def ko ci oui loolu ba léegi xaalisu askan wi la mais tey jii euh, ñëpp a ngi ñaxtu ci euh, taayu gouvernement bi naan euh, gouvernement bi dafa dafa dafa bëri ay ministère mhm. dafa bëri ministère donc ci jamono ju mel nii la war a jël li bi tuddee poser acte fort maanaam mu xoolaat gouvernement bi wàññi taayu gouvernement bi parce que mun na nekk donc loolu day permettre mu am ay économie yu muy def li tubaab ay niche am na ay institution yoo xam ne tey jii ñoo ngi fii ñu bëri jàpp nañ ne parce que dafa bëgg a neexal yenn yenn àndandoom moo tax mu teg euh, kuréel yooyu tas institution yooyu récupérer fa xaalis bi nga buy def buy posé acte un à un mm. wàññi naa taayu gouvernement bi tas naa bii institution lii daf ma permettre ma récupérer tant d' argent et cetera et cetera mm. mais boobaa nit ñi dañuy dugal seen loxo ci seen poche dugal seen loxo ci mbir mi donc ci gën a yomb parce que aujourd'hui am na ñoo xam ne xëy parce que gis nañ ne euh, diw def na ko donc man aussi foog ma def dara mm-hmm. yeneen bi mooy euh, am Sénégal lañ ko liggéeyee am ko ci bu ñu gisee benn benn chinois jël li mu li mu li mu moom ci alal dimbalee ko Afrique gis euh, ay euh, Maroc yenn industriel jël ay milliards milliards dugal ko ci euh, ci ci xeexu jàngoro bi donc je pense que également am na suñu doomi ndey yi nga xam ne ñooy fii Sénégal yàlla dimbale na leen ñu am alal bu bëri bëri ñooñu également taxawaay bu ñu bu ñu doon xaar ci ñoom gisaguñ ci ñoom donc ñoom également dañu war a góorgóorlu bu ci des nag comme ni ñu ko defee Caire 86 moo xam jaaykatu caaf bi la moo xam euh, jaaykatu mburu la moo xam euh, kuy jaay journaux yi la euh, ku ci nekk loo am rek lu la yàlla wërsëgal nga dugal ko ci ci la ci la ñu mën a permettre ñu am mille milliards comme ni ko président de la République waxee amaana sax bu ñu ci wàllu ci beneen wàll bi bu askan wi taxawee ni mu war a taxawee ci wàllu comportement amaana du ñu soxla mille milliards yi pour mën a tànk mbir mi parce a maîtriser jërëjëf Mamadou Lamine Diante ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi. jërëjëf maa ngi leen a baax. ñu fàttali ni yaa nekkoon secrétaire général SAEMS CUSEMS coordonnateur aussi bu grand cadre euh, chercheur nga ci wàllu éducation ak formation.